rëg rëg yow ak guy gi lan la guy gi keroog appliqué mm-hmm. na benn jaari terme mm-hmm. yoo xam ne ku xam rek rek ko neex mm-hmm. benn bi mooy ki mu doon bu vraiment waxi MMA ki la waaw bi man bi ma naan wax sax la <laughs> ñi muy upaajem man duma ci bokk man ko waaw wàcc yàlla ne barki seexu cana ba bu ma ko daanee bu ma daanee mu mu lan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 jéggalu yàlla suñu borom isa moom la ñu kon loolu baaxul làmb foo ak ree la sport la génnul Sénégal mais nañ ci bàyyi di dugal loo xam ne bokku si foofu laa si yem. mais rek guy gi ci boppam mbër kaamil la dafa ne. Mhm. su jàppee sa benn ngemb. Mhm. dina wax supporter nañ jug jug te xam ne da ngay daanu. waaw da lay simpi dafa nanga. waaw loolu xam nga <laughs> parce que ah. waaw nangu naa li mu wax.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 des fois doo làmb daj. mais mais bataille mais bataille psychologique la. parce que des su ko dafa changé. <laughs> ci diggante bi communication. keroog ba ñuy <laughs> ko nga yóotu ko xam ni tolloowu leen. mu métti ko lool. teewul nga wax nga wax ko lan ko fay wax. ñu ne Reug Reug nga xëpp ci kaan yow ak guy gi koy door communication. dañ la moytuloo.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 Assane waaw li ma ko fekk muy wax fii léegi wax fii léegi jamono yàlla ak non xam nga ko <laughs> non non <laughs> non xam nga lu tax waa bu baax ki nga ko xam nga yow waxagoo ma ko non non non ma question bi yow posé goo ma question bi les saa yi da nga may posé question ma lay tontu si naturel n'est-ce pas dañuy waxtaan xoolal dañuy waxtaan mel nii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 foofu laa si yem. avant combat bi daawoo wax ni. Hmm. avant combat bi taxaw attaqué nga. waaw xamul tax ma guy gi génn def sorti combat bi hmm. hmm. nga yaa gën doon xale. bu jëlee avance nga dóor ko. daan ko. bu bëggee sax nga dagg si sax xaalis yow. yokkal ko guy gi bu bëree moom. maa wax loo déglul noonu attaque non non xam nga léegi tonton Gool moom maanaam. li ma faral di wax yéen posé goo leen ma ay question yéen da ngeen ni instant dañuy waxtaan da nga may posé question ma tontu suñu avancé waxaat leneen man noonu laa mel. parce que réponse bi ñuy xaar. waaw moom ngeen gi waaw léegi xam nga lu tax ma wax loolu. ndax tey jii euh, bu ma juumalee defoon nañ fi benn émission boo xoolee moom mu nekk seen kër man ma nekk suñu kar waa TFM. Euh, di profité du nuyu Maawo. ak équipe bi yëpp maa ngi leen di nuyu. ku mel ni Youssou Ndour maa ngi koy nuyu. dama ne la lu tax ma communiqué noonu. combat laa jën. aw jën bala nga kaa jàpp. da nga koy si biir ko. ngay xencu meb bi est xam ne est-ce que lii meb bu baax la wala doonu bu baax bu ko xencu ne lii baax na mu bu jëlee nag nga tukkal njam xëcc yëpp si gaal gi. guy noonu laa ko def. ko tukkal dama ko piégé ko yëgal ko gaal gi ba pare nekkaat si leneen. ndax moom boo ko merloo rek nga am ka te loolu du sport sport xam nga lan la. kaf ree. kon daal man rek su ma déggee wax ji dafa mel ni guy gi dafa mel ni lii du combat daal yow yow li ngay waxee dafa mel ni. ah dama ne li ma déggee ni muy waxee dafa mel ni lii du combat parce que moom jàpp na ko. non jàpp naa ko boo déggee jàpp naa ko mooy maanaam sama combat ak moom guy gi bu leen dégloon ay communiqué am danaan ma sama palaa A bokk si B bokk si E bokk si. C bokk si beneen ba la bokk. est-ce que gisoo léegi maanaam tëb na A tëb na B tëb na C tëb na 1 e, ñëw si man kon li ma jàpp jàpp naa ko tukkal naa ko. ndax mooy li may faral di wax nit ki bul mer ba jël loo xam ne dalay lay gaañ pour ëllëg man doomu aadama laa si kaw suuf mer merloo ndax sama xol toj na ni damay dab saaga ma ndey si làmb ma xool ka ree dem sama yoon loolu lay sportif sportif waroo xol yor benn xolu rancunier guy gi dama kaa kor meeb mu fóon ka sekka ma tukkal ka yëpp ka si gaal gi loolu laa soxla woon ceene rek doole lay loolu nañ ci bu ngeen sëqee mhm. contact xam ne am na doole mhm. macha allah forum la mhm. bu mhm. kàllin fi daan. daan si ngeen bala bëreeg ñëpp. da lay téye. Mhm. imposer la force am. Mhm. daan la dëgg waa xam nga guy gi li may mën a wax si moom du bëri comme tellement quoi ndax ñun xamaguñu fan lañ jëm. comme moom dina am. dina am loolu moom ala kulli dina am. dina ma ala kulli an day am. ndax lekk nañ avance su jàmbur moom lekk na man lekk naa allah kulli aan day am ndegam yàlla suñu borom mu ngi may fanu gudd ak wér ah ak santé bu baax combat bi dina am.